Anyways.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 cay ndawi Sénégal ak yamba moom daal léegi kaali bi amul góor amul jigéen ñëppay muqi ñëppay jaay man kay dama xamul ñi lu leen booleeg yamba rek ma ne business yamba ji ni ci ndaw ñi sooboo ëpp na laa wax moo tax it insécurité total la xew ca bar ñi doy na waar ab dawalkatu saret ak corom ñoom lañ fa teg loxo fekke leen ak yamba kay mbir mi nag mi ngi xew bi élément commissariat bu bar ñi doon def opération de sécurité sécurisation maanaam caytu kaaraange gi naka noonu nag ci la ñu arrêté couple boobu ci moto fekk ña nga doon dem fa ñu naan tubaab jalaaw policier nag bi ñu taxawalee moto bi bi ñu leen fuyatee ci la ñu fekkee ci ndaw si di wuyoo ci turu es Diop di coros dawalkatu sareet bi ñeenti kornetu yamba ay waay ana jigéen ak yamba waay police yi sëkkatalee ndaw si nag ndaw si daf na yàmbaa jooju ki ko moom du kenn ku dul Y Diop di faram wi ko supporté woon ci moto bi Y Diop tamit di far wi bi ko alkaati fuyate fekke nañ ko ak ñaar fukki bee yoo xam ne yëpp ay téeméer téeméer la mbir moomu nag ñu ngi ko doon atte ca tribunal flagrant délit bu ndakaaru es Diop di ndaw si am ñaar fukki at ñaar moom daal ci kanamu attekat bi xalaat far wi ripp la def laa la wax ndax nee na Ibrahima Diop ak moom ñoo doon dem tubaab jalaaw Ibrahima Diop di far wi dal di koy supporter ci moto ndaw si ne bi ñu demee ba ci yoon bi ci la Ibrahima Diop far wi jëlee beneen yoon dal di jaar barñi ci noonu ci la ko Ibrahima Diop dal di dénkee benn mbuus ndaw si sax nee na moom mbuus moomu koy greg job far wi jox xamul woon sax lan moo ci nekk ndaw si jigéen say wax de nee na greg job bi mu defee jël beneen yoon xaw naa jaaxle ba sax mu na ko koo laaj ne ko waaye yow yaa ngi defee yoon de waaye i job far wi tontu ko ne montage u police yi la doon daw es job torosi nee na bi ñu jëlaatee voi normal bi si la leen police yi arrêté ne leen nañu wàcc daa di leen fuyate fekkee ko ak yamba jooju Diouf waay waay ma mbir mi doy na waar laa wax Greg Diop tamit far wi bàyyiwu ko ndaw si laa wax ndax nee na moom it ci kanamu attekat bi xaalis biñ ko fekkee daal la yoroon muy ñaar fukki biya téeméer te nee na nag xaalis boobu ci dawal gi muy dawal fas la ko jëlee teg ci ne moom liggéey rek la xam du ab trafiquant de drogue ma ñi nag seen mbir neexu la lijjanti de moom it Greg Diop dal takkal es Diop corosi ba mu takk ripp laa la wax ndax nee na es Diop corom soosu moo yoroon yàmbaa ji dal di koy nëbb ci suufu soutien gorzam ay nga ni teg ci ne xamul woon sax ni coram soosu yoroon na yàmba ma ci kanamu attakat bi daal ñoom ñaar ku ne koy jiiñ sa morom ba tax procureur li muy laaj ci ñoom ñu daan ñaari at yoo xam ne Y Job di far wi daf koy tëdd ak benn weer boo xam ne es Job di coro si koy tëdd waaye daal mu jëntal ba gis bi mu def mooy bàyyi far wi di Y Job mu dem ñibbi waay waaye es job di corosi nag moom daf koo daan benn weeru kaso boo xam ne daf koy tëdd hmm, ma ne nag dañuy seen couple bi moom xam naa fii lay jaare tas moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax la xew ca Kédougou ca quartier Ndor mi romb na doy waar moom daal ab mariage fa amoon ñaari xale doon fa xeex ba kenn ki dal di jam morom bi ka jam mu ngi wuyoo ci turu am fukki at ak juróom ka jam ci pour nag ba mu ñàkk bakkanam mu ci xale bi rey nag di kaaba bi ñu ko tegee loxo ba koy lanket nekk lu tax nga def lu ni mel def ne amul woon benn intention wu rey moo tax ma ne leen saytaane baaxul bàyyi leen ñoxot njaay ngeen génnee paaka moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax waaye Sénégal Sénégal ni ñuy reyee xale yi ndaw yi jéggi na dayo de ma ne la xew ci sibu xutaan gële te xewoon fi xewati fi ñuy jàpp ay xale yi muumin yu deful dara di leen rendi waay waay waay waay waay réew mi ku yabu téye sa doom de mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje di ci yeneen xibaaru buzz